asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sama mbokki taalibe yépp ci groupe bi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di ñaan samay kàddu fekk leen ci jàmm jàmm jooju sax moo tax moo gën a waral eh, vocal bi may def di wax rek ne jàmm lu ko waaye jënde jar na ko kuy seetaan adduna bi démb wala boog lenn ci xibaari adduna bi danga gis ne dëkk bi ñu wax Iran eh, bombardé na wala boog yónnee na ay eh, missile yónnee na ko dëkk bi ñu wax Israël ñoom ñaar ñuy ñaari dëkk yu yàgg noonu lool sax ci waxante sànnante baat léeg-léeg seen i kenn ku nekk ci ñaari réew yi rawatina Iran perte ay nit yoo xam ne ay général la nekk walla ay officier yu mag ci armée bi yoo xam ne Israël day nëbbatu ray leen wala mu ci jaare ko ci li ñuy wax Mossad Mossad mooy li nga xam ne moo yor service secret yu Israël loolu buñ ci bëggee jaar a gudd waaye ñoom ñaar ñu yàgg noonu lañ bu ci bu yàggut ci la Israël bombardé benn consul consulat bu nekk fële ci Damas ñu di ko wax Dimashq ci siri bombardé fa ba fa ay nit ñu bari ñoo xam ne am na général bu mag bu ci bokk xam naa loolu la Israël doon fayu nag ba tax moom it mu attaqué démb ba li mujj wax sax mooy attaque bi jeex na maa ngi xaar ndax mënu ma a ñàkk fayu waaye maa ngi xaar ba kenn laal ma. léeg-léeg nga réew mu mag mu ci dugg lu mel ne États-Unis xaw a wax ba démb Joe Biden li mbir mi tartar ak élection américaine yi jublu du ñu bëgg guerre te ñoom Israël dafa am solo ci ñoom képp koo xam ne da ngaa bëgg a gagner États-Unis faaw nga ànd ak li ñuy wax lobby juif bi mooy groupe de pression yu mag la ñu nekk wala boog am mbooloo la ñu nekk mu am doole moo xam ne képp ku bëgg a gagner Amérique. dangay maslaa ak ñoom te ñoom ñoo nekk Israël ñoo ko moom foofu lañ gëm ne mooy seen suuf su sedd su sell si nga xam ne dañ ko war a téye ba tax ñu euh, ci xeex ak arab yi di ci xeex ak jullit yi du yàgg yàgg yàgg di rey ay xale di rey ay mag di rey ay màggat di rey ay jigéen ci noo xam ne wàllu condition yi nga xam ne moom la leen war a sax da koy tere yéen ñëpp gis ngeen ko euh, jullit yi tam di défendre alquds mooy Jérusalem nga xam ne fa la yonente bi rañaanoon yooyu yëpp Israël di ci def ay mbir yu jéggi dayoo waaye gis ngeen démb rek ni àddina bi yëngoo bi Iran sànnee ay bombam rek da gis lu bare bari ci économie àdduna bi commencé tàmbali am rëg-rëg coow li bari lol lol nak li muy tekki ci côté géopolitique gis nga ni nga xamné li ñu wax stratégie sam say intérêt ak dal ak lu ñew nga jangat ko lu ñew nga jangat ko ba xam na nga cay def ci tek ak tay moom ngay jangi dembu ci li ci li xew ci li xew bo xolé amna ben comité wala ben commission wala bo xamné euh Benjamin Netanyahu mi nga xam ne moo jiite Israël démb bi Israël bi bi bi mooy premier ministre Israël bi nga xamee ne Iran mi ngi waaj a sànni ay bomb xam nañ ko ba tàmbalee daje waajal seen bopp defar seeni système yi nga xam ne mooy boo sànnee missile moo koy topp daaneel ko yooyu yëpp xool itam ñoom nu ñuy fayoo te ba léegi xamagoo ko kon li mu mooy jàmm lu ko waaye jënde jar na ko adduna bi ñëpp a ngi rëg-rëg yi kon Sénégal dañ xam lolu ay itam sàmm say intérêt bu baax a baax a baax te bañ koo jaay te xam ne àdduna bi kenn ku nekk dafa soxla suuranteem suurante nag mooy li ñuy wax asiyaada mooy nga moom sa bopp ci lu bari sàmm say ressource naturelle moom la ñuy wax almawarid tabiiya lu mel ne pétrole ak gaz ak respecté sa nit ku la ku laal ab sénégalais fu mu mën a nekk ñu yëg ne kooku yëg ne réewam jub na waaye ku laal yi fi Sénégal Sénégal gépp dal di jóg loolu moom lañuy ñuy fàttali rek suñu mbokk yi ci ne nit da ngay fonk sa bopp te teel a waajal sa bopp waaye da ngay jàmm loo ko jënde loo ko jënd rek amagoo prix ba ndax ñiy dang-dang bombardé ci ay hôpital di bombardé ay ambulance di bombardé ay ambulance yooyu yëpp ñooña ku leen waxoon as tuut ci jàmm ji nga xam ne moom la Sénégal di dund duñ ko gëmee loolu nag nañu waajal suñu bopp ñun ñëpp ci biir biir parti politique yi biir tarixa yi biir organisation yi biir association yi lépp na ko waxtaan di lal ak diplomatie ak stratégie ak tek ak teey loolu lu am solo la xam ne foofu la adduna bi toll foofu la adduna bi toll adduna bi ñu ñu ngi rawante ci xam-xam di rawante ci eh, kan moo la démb rek am na li ñuy wax ay pirate iranien yoo xam ne dañoo dugg ci benn système système bi nga xam ne moo yor wàllu radar yeeg yooyu di yuuxoo yooyu ci biir Israël dañ ko piraté dugg fa ba jaarale fa ay message di di di tiital israéliens yi loolu xam koy def loolu xam-xama ko def israël tamit nam def ba xam ne ñu ngi koy bombarder heure tel ay avion yi nga xam ne wala système am bi nga xam ne mooy daaneel bomb bu dugg réewam xam na ne mi ngi ñëw ba naan la heure sàngam la yegg si yooyu yëpp xam-xam la kon nag foofu lañuy ñuy war a toll ñun adduna bi mooy addunab xam-xam di addunab stratégie di addunab tekk ak tey waaye di àdduna doo laal yi fi na waaye bu kenn laal sa loolu jàngat boobu laa am démb ndax Iran dañ ko laal mu fayu loolu bokk na ci ci ci fulla bokk na ci fulla eh, waaye itam looy bëgg a def it nga xool ko segg ko seggaat ko ba ci jëm waaye itam principe bu wa wax ne ku la tooñ nga tooñ nga fayu jëf ju mel ne loola tooñ nañ leen fayu nañ déclaré nañ leen seen seenu fayu taxaw na ba fii ñuy gisaat leneen kon daal liñ ci man liñ ci mën a jàngatee jàngate bari na waaye daal nañ xam ne àdduna bi ñëpp ñu ngi seen bopp ñu ngi lijjën seen bopp ñu ngi waajal seen bopp itam te Sénégal yu mel nii bu dee am ñun baaxutu ñun ci réew yu ndaw yi xam ne dañoo dañoo laal ci pauvreté ndax prix yi dina yokk pétrole beeg transport bi dina gën a yéeg prix conteneur yi nga xam ne dañ ci ciy importer marchandise yi mu war a traversé ci zone boobu ñuy wax wala benn partie ci Moyen-Orient euh, conteneur yu bëree bëri foofu lay jaar di dugg si Afrique kon foofu bu buñ ñàkkee jàmm day feeñ ci ñun bu baax a baax bay boo ñu ñaan mu yem fi bay boo ñu ñaan mu yem fi incha allahu taala muy muy muy muy zone bu complexe nag bu compliqué foofu ndax ay diine dañ fa nekk yu bokkut ak ay xeet yu bokkut di laalante di xeex saa ne kon nag loolu comme ñoom mën nañoo xeex heure bu ne dañoo jubóodikoo ci pas-pas waaye jubóodikoo ci seen intérêt comme mën nañoo laajante heure bu nag ñun fii lépp lu jëm ci wàllu lekk suñu wàllu lekk li nga xam ne dañ koy jéggaani rek nañ koy waajal nag di fexe bay di dundee comme ni ko président Bassirou Diomaye Faye waxee Eh, bay di dundee li nga xam ne yaa ngi koy bay nga di ko lekk ba doyal soog a exporté ndax corona bi jàngal nañu lu bari ci biir réew yi tëjoo waaye fii it day zone bu doy waar boo boolee Turquie boolee Perse yi muy waa Iran boole ñi eh, ñuy wax urdu yeeg yooyu côté Pakistan ak hébreu eh, hébreu yi mooy mooy juif yi nekk Israël nga boole kook arab yi jàll ba ca euh, Russie jóge fa jàll Chine boo xoolee dëkk yi yëpp kenn ku nekk ma ngay xuloog ña ca des Chine a ngay xuloog États-Unis États-Unis a ngay xuloog euh, Russie euh, Russie ngay jàppale waat Iran aliyem la Iran ngay noonoog Israël noonoog arab yi ci wàllu pas-pas ci li ngay dégg ay chiite ak euh, ak sunnite yooyu yëpp muy fu complexe te foo xam ne nag diine yu bari fa la jógee waaw di mooy le berso de des religions mahabatu diyaanaat kon fu fu doy waar la fu complexe la ba pare nag ay géej jaar fa dañuy wax li ngay dégg ñu naan mer rouge ak mer noir ak euh, yooyu yëpp ak bato yu mag yi lëkkale diggante Afrique wala Europe jëm Asie yooyu yëpp ci zone boobu lay jaar te bu amee problème dañuy teggi buñ teggee nag charge yi ci ñun ci ñun lay dal kon liñ ci war a taxawee mooy ñaanal Palestine ñu génn ci li nga xam ne ñu ngi koy tooñ te tegut fenn depuis ay at ñu leen ñu leen seetaan waaye ñaan jàmm am ci àdduna bi itam nag ñetteel ba mooy ñu waajal suñ bopp nag waajal suñu bopp ci li ñuy jëggaane lu baree baree bari ñu mën koo jéem a téye dëkk jéem def ay usine di fabriquer lu baree baree baree bari Sénégal cure cure dent sax day day day waroon nga buntu kër boo gis boo jaar fekk ñu koy defar euh, coton tige waroon nga buntu kër boo jaar fekk ñu koy defar damaa li nga xam ne daa gën a ñàkk fayda sax te gisoo ko fi waxuma laak nag fexe bay lekkal sa bopp fexe ba loo soxla ci wàllu plastique loo soxla ci wàllu lekk yi nga xam ne da koy soxla bés bu digitalisé Euh, wala boog dématérialiser administration bi loolu président Diomaye wax na ko mooy fexe ba nit ki bu soxla wenn kayit léegi en ligne la koy def yu mel noonu am na solo lool Sénégal ñu war cee taxaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.